Euh, tegal am na ci déjà ay tur yoo xam ne ñi ngi ko doon wax sànq rek euh, ñëw nañu ci euh, gouvernement bi d'abord bi nga gisee yenn ci ay postes yoo xam ne c'est post postes clés xëy na ñu njëkk foofu fu mel ni justice ak intérieur ñaar ñi nga xam ne ñoom lañ ko jox muy Ousmane Diagne ak ki nga xam ne moo di général Jean-Baptiste Tine. Issa remarque bi bay njëkk def d'abord mooy dama jàpp ne signe de rupture gisaat naa ko sànq mooy lan mooy nekkuñu gouvernement boo xam ne da ngay wàññi ministres yi daanaka bañ mat 40 là c'est 25. muy bindu promesse électorale de Macky Sall bu defoon en 2012 que ne bu nekkee président du am gouvernement bu dépassé vingt cinq ministres là ñii vingt cinq ministre lañuy am ak cinq secrétaires d' état ma jàpp kon ne c' est déjà un signe de rupture beneen bi mooy dama waxoon ne rupture rupture lu baax la mais gis naa ne gouvernement bii ñu nar a tabb day nekk gouvernement boo xam ne dina bari ay ndaw. ñoo xam ne peut-être ñoo nekk ci Pastef miinuñu leen euh, trop ci occupé yenn fonction yi dinañ dugg ci gouvernement bi ñooñu am na ñu ci ñu ci dugg mais li nga xam ne moom laa ci gën a seetlu mooy ay kilifa yu mat de haute personnalité ñoo xam ne def nañ carrière yu mucc ayib ñi ngi ci gouvernement bi tey dama ci jël exemple te xam naa Pape Sané dina ci après le général Jean Baptiste mhm. nga xam ne moo jiite woon l'armée wu Sénégal astafurlah gendarmerie bu Sénégal jusqu'aux événements de mars 2021 euh, ci conditions yooyu la fi jugee ba ñu yóbbu woon ko defe naa ambassadeur mhm. fële ca Moscou mhm. euh, ci Russie tey jii ñëw na nekk ministre de l'intérieur et euh, de la sécurité ou quelque comme ça Mm-hmm. dafay fàttali un peu une tradition boo xam ne euh, Abdou Diouf moo ko fi njëkke woon euh, suma juumul jël général Lamine def ko ministre de l' intérieur mm-hmm. euh, tey ñu jëlaat après le général Niang qui a été ministre de l' intérieur tey jii un homme de tenue un général moom moo nekk ministre de l' intérieur ñi ko xam ñëpp Jean Baptiste Tine ils disent de lui que il est irréprochable nit ku jub la nit ku xam liggéeyam la nit ku ko mën la le fait que mu nangu tey dugg ci gouvernement bi man dama naan ça rassure parce que bu ñu fàtte on a président qui a 44 Premier ministre qui a, je crois, 48 ans comme ça. Mhm. Avoir des gens comme ça dans le gouvernement, c'est rassurant. beneen bi mooy le ministre de la justice. Issa mhm. fii ñu toog man ak yow léegi laa la wax ne man ñi ma waxtaanal ci dans la famille judiciaire da ñi ci ëpp dañ naan la bu ñu sañoon le prochain ministre de la justice <coughs> nekk avocat. du nekk jàngalekat wax naa ko keroog bi ñu toogee fii man ak Pape hmm. euh, tey jii nii ils ont pris un magistrat te sànq maa ngi naan la hmm. un magistrat yaakaar naa mooy li gën euh, ba may tuddu le nom de Souleymane Téliko hmm. mais ils ont pris un magistrat mais qui a énormément de valeur muy Ousmane Diagne nga xam ne moo nekkoon euh, avocat général jusqu'à jusqu'à fi ñuy waxee nii cour suprême Ousmane Diagne nekkoon na procureur de la République du temps d'Abdoulaye Wade et ba mu fay jógee ba léegi nit ñi dañuy fàttali naan il a un bon procureur lui-même il avait l'habitude de dire j'ai jamais été un procureur d'un ministre ni d'un gouvernement j'ai toujours été un procureur de la République et man ma jàpp ne loolu lu am solo la beneen bi yoo xam ne aussi seet naa ko mooy Yacine Fall euh, ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères déjà man l'appellation j'aime bien intégration africaine ensuite euh, affaires étrangères j'aime bien entendre ça Yacine Fall une femme d'une grande valeur nga xam ne moom euh, fu nekk dem na fa euh, à travers le monde à travers notamment ses fonctions nga xam ne moom ak Aminata Touré euh, c'est des femmes yoo xam ne respect bu ma am ci ñoom mooy fu ne liggéey nañ fa ba léegi mënoo gis ne lii nga leen mën a taxal. donc la meilleure la première des langues nga xam ne. Ah da koy man da koy. mais elle ne parle pas que ça. voilà donc le fait que wax langue yu bari ba kooku xëy na bu demoon affaire étrangère. ce serait bien pour le Sénégal. man problème pour dégg mais mais yàggul dara ça Euh, quelque trois ou quatre mois je pense ah. am na benn euh, des des Africains euh, qui étaient venus ici à Dakar. Mhm. pour rencontrer des des journalistes qui ont été persécutés durant le régime de Macky Sall man mi bokkoon naa ca euh, Pape Alé Niang Pape Sané nga ci woon Pape Alé ma nga fa woon Thioro Maxu Mandela ma nga fa woon keroog bi ñu toogee mais quand tu entends Yacine Fall parler. Mm -hmm. mais tu as l'impression que soxna si mais anglais la nàmp anglais la nàmp elle parle mieux l'anglais que le français d'ailleurs donc le fait que man en tout cas ça me fait plaisir mm-hmm. d'entendre que ni moom moo yore euh, affaires étrangères c'est dugg si yeneen ministères yi mais Pape Sané ci côté boobu parce que man ñaar yooyu daf ma ñor muy justice ak intérieur euh, benn bi ñu jox ko un général beneen bi un procureur kii euh, Issa vraiment Euh, à l'image de Moustapha damay consacré rek damay jàpp ne que la rupture a été consacrée. Mhm. Euh, pourquoi. en tout cas y a un bon signe. voilà c'est pourquoi euh, qualité ressources humaines mhm. yi. nga xam ne moom la ñuy jot waxtaanee léegi léegi nii wax nga ko Ousmane Diagne. voilà euh, kon euh, bu fekkante rek mën nañ leen a jëli jiwaat euh, Mamadou Thiam ak ba Faye ngir rek ñu daal di ñuy defal un petit résumé laata ñuy dellusiwaat ci plateau bi ngir tàggatoo ak ñoom ñoo ñu di nekk ca palais de la République Mamadou Thiam. qui suivait pour nous cette publication de la liste des euh, 25 membres du gouvernement d'Ousmane Sonko et aussi Allô, am euh, yaa ngi euh, nekk ca palais de la République euh, Thiam dafa mel ni euh, dégg-dégg bi euh, neexul en tout cas ñi ngi ko doon gis euh, normal je sais pas pourquoi son bi demul xëy na même bu dee dafa am interférence warte. oui Issa yàgg Mamadou jàmm